mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen euh, jaajëfal di leen wax ne rek euh, dal leen ak jàmm fii si seen euh, chaîne youtube seen ak acti tv tey nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci li gën ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door ak artiste bi nga xam ne moo di Keba Seck Keba Seck nag ab artiste la ku ko xam rek xam na ne bokk na ci famille Seckeen boobu nga xam ne Faramareen bu mag bi di nekk ne centre di peuple ñu gën ko xam ci turu Wally Ballago Seck ci ñooñu la bokk waaye nag Keba Seck nag nekk ab centre boo xamante ne depuis 2015 la génne woon li nga xamante ni def ab interview xamal rek ni moom dafay imposé wu ci li nga xam ne moo di musique fii ci Sénégal ba tax na en 2015 génne li nga xam ne moo di premier clip ma di clip bi mu tuddee kuy reer reer bi waaye depuis boobu nag Keba Seck nekk na artiste yu ci ba nga xam ni daanaka li ñuy génne ay album bëriwul mais nag bokk na ci artiste yoo xamante ni li nga xam ne moom moo ëpp ci lu ñuy feesal ci soirée. ne maanaam soirée yi am ci yenn baar fii ci Sénégal rawatina nag ci foofee ci Almadi moom nag ci benn album bu mu jot génne ñaari clip rek la am sur le marché maanaam benn album boobu mu génne woon en 2015 ñaari clip rek la am mu dox nit yi jot koo jënd waaye nag di fàttali nag soirée yi fii ci Sénégal ba jamono ji ñu toll kenn mënu ko ci ndax chaque weekend rek fii di soirée yi nga xam ni moom bi di Keba Seck dañ koy amal foofee ci baar yi day fees bay tuuru moom nag sixième nag yéex na feeñ ndax dem na sax ba dugg ci soixantaine am comme quoi on dit tant qu'il y a vie il y a de l'espoir dem soixante ans doog nekk jeune talent moo dal li nga xam ne moo di kii di Keba Seck di fàttali rek nag moom nag li ko gën a propulsé maanaam li ko gën a may doole bokk na ci way yi nga xam ne moo di nëm si yàlla coon Seck rek daan na ko way mu jël ko di ko mixé ci lu ëpp ci soirée bi nag seetlu nañu ñetti wayu coon Seck yu gën a siiw daal jël mixé ko di ko ci def ay live yu doy waar waaye nag bu ñu jógee dañuy dugg rek ci li nga xam ni moo di politique langue politique nag yëngooti na waaye nag bu subaa niki alxamis lay gën a yëngu ndax kile di Ousmane Sonko dañ ko convoqué mu war rek wuyu ji di fàttali rek nag ab procès bu doxoon ci diggante moom ak kii di Adji Sarr ginnaaw nag massage kat boobee doon liggéeyee foofe ca institut de beauté ginnaaw nag ba fa Ousmane Sonko demee mujjee na ko giñ li nga xam ni moo di viol ba tax na nag mars bi ñu génn taxoon na loolu ñu nemmeeku fi sax lu mësta am fii ci réewub Sénégal waaye ndiki suba rek la ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko di leader Pastef war a wuy ji foofee ca police waaye nag kii di Khalifa Ababacar Sall génn na rek di araftu nit yi te rek nag mi ngi naan dafay tiit li fi xewoon ci mars bi ñu génn xew suba ci procès Ousmane Sonko waaye rax si dolli moom moomee di Khalifa Ababacar Sall nee na li ni mel juste du lenn lu dul lekk ab dëkk boo xamante moo ko bëgg a tegal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko te nee na nag bi lépp dekk ñoom duñu bàyyi kii di Ousmane Sonko euh, di ko dëgg ba rawatina moom mais di Khalifa Sall di Khalifa Sall ak képp ku bokk ci yeewu askan bi bu subaa dinañ bunge ki nga xam ni moo di Sonko foofee ca procès ba ndax bi lépp xeex duñ ko si mës a bàyyi muy wéet waaye dañuy jukkee ci langue politique daal di xuus biir Sénégal dem ba foofee nga xam ne moo di Casamance waaye nag dañuy dem Tekkañ di ab lycéenne app ndaw rek buy jàng ci daara jot na am sax li nga xam ne moo di BFEM moom nag dafa xaru moom nag lu tax mu def jëf ji ni mel kenn xamu ko ay mbokkam daal ak ñëmu dëkk ñoo toog ba si yàgg rek seetlu ne gisuñu kii di Fatouma tekkaañ daal di dugg si biir néeg bi rek yam ci mu jël ab corde daal di fa takk ci boppam naka noonu lañu xoolee rek daal di gis ne ki lépp di faatu nag ñàkk na bakkanam li ni mel nag séejul xewee foofee ci région bu nekk ci diwaanu Casamance bu ñu jógee foofu dañuy ñëwaat tuuti ci procès bi nga xam ne dina dox si diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndikki alxamis bi ñu mal ndax kile di Malick Gakou génne na rek def ab interview di xamal ni rek kile di Ousmane Sonko nga xam ne kii di doyen des juges moo ko daal di convoqué bis bu demee foofee nag ca wuy ji bi lépp convocation dinañ ko setal moom nag nee na loolu la am loolu la am te loolu la gis ba tax na nag moom mee di Malick Gakou taxaw temb rek di fësal jàppale kii di Ousmane Sonko. waaye nag xibaar bi journal bi xëy tey fësal nekkul loo xamante ne neex na ñi nga xam ne ñoo ngi yeewoo fii ci continent bii di Afrique rawatina nag ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofee ca centre continent bu Afrique ak centre ak ak Afrique de l'Ouest ginnaaw nag ba li nga xam ni moo di ONU xëy na rek fësal que lii di Afrique de l'Ouest et du centre bokk na ci fi nga xam ni euh, ci àdduna wërngal këpp ci lu ñuy utiliser daal ci wàllub drogue jéggi na na dayoo lii nag di ONUDC nag xëy na fësal rek ne diggante ba bi ñu nekk lu tollook cinquante sept kilos de cocaïne jàpp euh, fi nga xam ni moo di diggante Afrique de l'Ouest ak di centre li ni mel nag doy na waar ba ñenn yi sax di wax fi mu toll nii Afrique moo nekk endroit boo xamante ni nekk na endroit international bi nga xam ni jaaykatu drogue yeeg jëndkatu drogue yi daal fi la ñuy jaarale seen lépp affaire frère Seck ginnaaw nag ba nga xam ne ni kii di Ibrahima ñàkk na bakkanam moom nag li tax mu ñàkk bakkanam ba tey ji nag moom la ñëpp di laaj ba tax na nag fameem nag daal di jaxasoo jaxasoo bu kenn xamul ndaxte kile di ay demi frère am la ñu giñ rek moo rey ki nga xam ne moo di Ibrahima Seck ab sax sëriñ boo xamante ni sax jot nañ ko cee takkal di wax ni rek avant muy gaañu ci guddi gi rek moom mee di Ibrahima Seck gis nañ ko foofee ci kër bu lépp sëriñ mu daal sol ab jàllaabe bu weex di ñaan xaalis rek ngir jënd li nga xam ne moo di café moom nag di Ibrahima parce que kii di nga xam ne moo di cousin wa nga xam ne ñoom ñaar mosuñoo juboo wax na ne sax rek que bi mu jël ci ab secte bu ñuy giñ ne rek bokk na ci ñi faat Ibrahima Seck daal moo ko ko jox diggante cousin ba sëriñ ba ak mag ak rakk yi nga xam ne ñoo wër kii di Ibrahima Seck kan moo ko rey kenn xamul def nañu ab procès ndax procès ba nag mujjul fenn ndax ku taxaw di wax taxaw di wax ku nekk ñee di frère Seck ginnaaw nag euh, buñ ci génnee ki nga xam ne moo di Ibrahima Seck nga xam ne ñàkk na bakkam ñàkk na bakkanam euh, ñeneen ñi si des nag euh, koo xamante ne bokkut ak seen taawu kër ñoom ñëpp seen papa da leen a gedd te seen yaay du wax ak ñoom na waar ndax affaire bi kenn xamul fu mu mujj te ñu koy for dafa fekk nag mu commencé yàqu ba tax na li nga xam ne moo di autopsie rek police mu ko amal waaye nag naka rek tiis la xibaar yi xëyee ginnaaw ba nga xamee ni rek ki di fi nekkoon ab ab comédien de théâtre di Bass Diakhaté ñàkk na àddunaam niki mercredi bi to yemoo ko ñaari fan ci weeru novembre waaye nag rek tiis foofee ci yëmbal sud ginnaaw nag ab match de football buñ fa amaloon ki nga xam ne moo nekkoon di garder camp bi lépp match bi amoon nag dafa jàpp ab bal waaye nag naka mu jàpp bal bi dafa daanu rek dal di dee ñàkk bakkanam ba tax na nag ña doon football ak askanu yëmbal sud tey nag ci ñàkkare tiis ak ñàkkare bi lépp génn àdduna bi lépp gardien doy na waa trop ñoom rek nag nekkuñu ci jàmm te jaaxle nañu trop waaye nag ngor foofee ci route des Almadies tey nag ab salon moo fa tax ba jeex tàq ginnaaw nag am na ku dugg sax ci réseau yi publier rek woon sapeur yoo xamante ni nekk nañ ci rond point Brioche Dorée foofee ca ngor waaye nag jotuñoo ñëw ba bi lépp lakk daal jéggi na dayoo xibaar yi nag foofu la yam laal na fenn wala laalul fenn lañ ko fii ci xët yi mbokki internetu seen acti tv tey nag li leen li indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu way leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne youtube seen acti tv la chaîne au cœur de l'information